pour Rewmi 24 TV nañ leen bu baax jaajëfal leen ci ànd bi ngeen ànd ak seen site internet bii di Rewmi mi TV li gën a fës ci bopp xabaar yi nag dañu koy do rek assises yi nga xamante ne rek justice bi dafa daal di tëdd mu nekk ay nit yoo xamante ne rek daanaka dañuy wëccu ci kanamu magistrat ngir nag changer justice bu réew mi mbir mënu mel daal farce dëgg rek lay ñoo ndax lu ëpp 263 doomu aadama rek la daal di assommé nag ci wàllum justice assises yi nga xamante ne rek niki talaata bi ñu génn nekk na ay góom yoo xamante ne rek bu justice réew mi la mu nekk assises yoo xamante ne rek dajale na ñi nga xamante ne dañuy liggéey ci wàllum juste ñu jàppee leen professionnel te ñoom ci seen jëmmi bopp rek ñoom ñoo daan jugé ba noppi rek criminalisé ba noppi amnistisé mu mel ni rek yëf yi daal ay waxul naxa sakandang dong nag moo nekk ci juste su réew mi mu nekk politicien boo xamante rek bu ko na bu ko neexee naan yenn verdict yi jaarale ko nag ci compromission yi nga xamante rek mi ngi koy def ak ñenn ñi nga xamante ne ñoom la ko sekkal mu nekk majorité boo xamante ne rek daanaka duñu rus ci kanamu parlement tamit ci seen jëmmi bopp rek ñoom ñoo leen daal di eh, teg fii ba noppi rek ñu leen di joxañ baram tuuma di leen di wooyee ab terroriste kenn rek leen leer eh, boo xamante ne ci bisu data bu yaraax nit ñi bañ intérêt rek la am nag eh, pour def amnistie ci crime yoo xamante ne def nañ ko ci atum 2021 jàpp 2024 mu nekk amnistie boo xamante ne kan moo ci nar a nekk ab laaj boo xamante daal nañ nag a moom la ñu naqarale ak torturé jaarale ko nag ci deret yu bari yoo xamante ne rek daal dinañ ci jaar ndax boobu ak léegi rek mën na ñetti weer ñi nga xamante ne rek ñoom lañ jàppee ne nag ñoom ñoo toor ci wàllum justice jot nañ leen di vilipender waaye nag ñi nga xamante ne ñoom ñooy magistrat yi nekk ci gouvernement bi nag ñoom si seen jëmi bopp rek lan mooy seen cër waaye nag mbir mu nu mel ginnaaw magistrat ci jëmi boppam rek nee na war na def face à face boo xamante ne rek ci criminel yi nga xamante ne rek la gis ak ñenn fenkat yi nga xamante ne rek jot na nag ñu daal di leen corriger ndax gis nañu rek li nga xamante ne daal wax nañu ko ak li am rek comme yàlla ak ma yàlli te mbir mu nu mel Sénégal ci jëmmi boppam rek loolu la yàgg reefee ndax nag du ñu toog nag di gént Sénégal boo xamante ne rek dafay daal di toog ci juste dem réewu Sénégal a nekkul lenn rek lu dul wàcc ba noppi rek soog a corriger mu nekk mbir moo xamante ne rek ñu ci bëri ci magistrat yi nag moom la ñuy jox comme valeur ginnaaw bu ñu gisee ab assassin ab assassin boo xamante ne rek ci au magistrat la bokk ñu koy xool ci ban di xool ci bët te ñeneen magistrat yi nag ci seen jëmmi boppam rek ñu ngi ne xujjuta amul leen loo xamante ne rek wax nañ ko ci sans mu nekk mbir moo xamante ne rek kii nag wax ki nga ki ki nga xamante ne rek moom moo lay fenal moom lay moo lay accusé te nekkul lenn lu dul juge bi ginnaaw bu ñu gisee ne nag ay nit ci seen jëmmi bopp rek ñu ngi daal di tënku rek ci système boo xamante ne rek dafay jël justice mi nag di ko xeexee jëmale ko nag ci askan wi mu nekk initiative boo xamante ne rek bu ñu muytulee mën na jur nag point de départ ndax justice bu nekk justice rek dafa war a nekk service su askanam te mbir mu nu mel nag moom la ñuy xaar waaye nag du rupture boo xamante ne rek dañ koy promettre ginnaaw rek ñaareelu rupture bi nga xamante ne rek def nañu ko ci rapport atum 2018 comité bu yor wàllum concertation ci soppi nag justice bu réew mi daal dinay wane insuffisance ginnaaw bu mu gisee ne rek wëccukat yi ci seen jëmmi bopp ñoom ñooy tànn façon bi nga xamante ne rek moom la ñuy amalee tam mbir mu nu mel nag nekkul xeex benn yoon ci wàllum justice ba tey rek kii di Lionel Gospy la mu daal di xam ne moo leen nag amoon na raison bu fekkee ne rek justice ci jëmi boppam rek rendre justice kon nag juge yi ak ñi nga xamante ne rek ñoom ñooy rek ñoom ñëpp rek ñoo nga ca ak ñeneen ak ñeneen rek mu nekk mbir moo xamante ne rek wala ay conditions yoo xamante ne ñenn ci góor wala ci jigéen ñoom si seen jëmi bopp rek buñ leen jàppee nag ay fankat wala ñu bokk nak ci ay partisans yoo xamante ne rek dañ leen jàppee ñu tële ngir ñu jël nag part ci assises yi niki talaata bi ñu génn kii di nekk délégué délégué intérimaire bu mouvement gëm sa bopp moom moo ko daal di yëkkati moom mi nga xamante ne rek moom moo yor euh, wàllum politique euh, boobu lee jërë ngeen jëf ci and bi bu leen fàttee abonné bés cloche notification ngir dara bañ a raw